daanaka nag jafe na lool ngir gouvernement bu Sénégal nag ngir mu wéy ci li nga xamante ne nii moom mooy wàññi njëgub lekk gi comme niñ ko annoncé wee woon ci ministère bu yor wàllum commerce ak tamit ni ko jaaykat yi xamale woon. démb nag ci conseil des ministres président Macky Sall nag daal dina joxe ay ndigal ndaxte nag li ñu seetlu mooy li jëm ci yokkute njëgu jëm ci wàllum lekk yi nag nekk na ab jafe-jafe loola fii ci Sénégal président Macky Sall nag daal di woo ministre bi Assome Diatta ngir rek mu respecté lu jëm ci njëg yi nga xamante ne ni moom la ñu teg ngir marché bi président nag dollil ministre bi yor wàllum njënd mi ak njaay mi ak entreprise yu ndaw yi ngir rek mu woy ci li nga xamante ne nii moom mooy lekk gi ak naan gi mu doy lool ci marché bi mu lu jëm nag ci wàllum denrée yi nga xamante ne nii askan wi dañ koy soxla ngir rek mu doy ci marché bi rawatina nag ci jamonoy koor gi ñu nekk waaye nag li ñu seetlu mooy ginnaaw ni nag jël nañ ay mesures lu jëm ci wàllum wàcce njëg yi commerçant yi nag ñoom ba tey mënuñu ko respecté te nag gisoon nañ lu jëm ci wàllum gouvernement bi tegoon nañ ay stratégie ngir rek gunge commerçant yi ndax nag seetlu nañ jamono yi ñu génn ay ndaje yu bëri dox ci diggante état ak commerçant yi ci yooyee ndaje nag état bu Sénégal nag demoon na sax ba jël engagement ngir rek joxe lu toll ci cinquante milliards ci li nga xamante ne ni moom la jaaykat yi nar perte ci lu ñu jotoon a jënd ngir rek ñu mën a wàññi li nga xamante ne ni moo jëm ci wàllum suukar wàllum ceeb diwlin meew ak yeneen yi nga xamante ne ni askan bi dañ koy soxla waaye nag ginnaaw ni loolee lépp. ñu seetlu ni ba tey consommateurs yi ñu ngi am jafe-jafe lu jëm ci wàllub yokkuteb marché bi rawatina nag ci jamonoy or gi nga xamante ne ni dépenses yi daanaka day